nga ci biir kër gi waaw waaw dëkkandoo yee jëkk jooy bari rangooñ ñàkki nelaw a ko del julli di julli di ñaana ñi nekk ci biir suuf alhamdulillahi rabbil alamin neex na lii neex na lii neex na macha allah asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ah di leen nuyu nag kenn ku nekk ci turam ak santam di doole sant rek li nga xam ne nag fas yéene ko def chaque jour muy seen émission on dit quoi ñu koy ànd ak di def ay naan naan saa su ne ñu fi indi ñoo xam ne dañ leen di bégal ñu fi indi ñoo xam ne ne daf leen di fàttali démb wala leen di fàttali tey ah xam ngeen ne semaine bi nag dañoo am lu ñu débuté depuis mardi gis ngeen ñu ngi dalal ñi nga xam ne ne mooy la grande troupe lyrique de Sorano maanaam tout traditionnel bi nga xam ne ne ñooñu ñenn ñi suñuy maam lañu ñenn ñi yaay lañu ñenn ñi suñuy macha allah troupe boobu nag di def hommage bu mag a mag ah ànd ceeg ki nga xam ne ne mooy doomu la défunte ñu naan ko Adja Adja Touré ñëwoon na fi mardi ñëw def li nga xam ne moom mooy introduction bi nga xam ne ne la ñuy defal yaayam muy Majooju Ñing defe naa ne Majooju Ñing moom xëy na génération yu bees yu xale yu ndaw yi tuuti ñoo ko dul xam waaye sunu génération yi nga xam ne ñun dañoo toppandoo sunu yaay toppandoo sunu tante yi sunu yaay yi nga xam ne ñu ngi seetaan def naa ne ñoom seen xol tooy na ndax événement bi fi ne événement planétaire la événement mondial ndax defe naa publicité yaa ngi daw nit ñi daal information bi jàll bu baax a baax a baax man nag ci on dit ma ci dalal si ndaanaan yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci troupe lyrique boobu noonu ah gis ngeen mardi ki ma dalaloon sama yaay Ndeye Fatou Ndiaye maa koy nuyu bu baax baax baax mu ngi seetaan tey nag mu dalal nag sama beneen yaay bi nga xam ne ne man maa ko bëggal sama bopp. yaay jaal jaal baay ah yaay. yow moom sa kanam la ñu duggee. wallaahi ndax sa kanam représentation la. dëgg la. sa kanam télé la. ndeysaan. sa kanam voix la. dëgg la. donc yow. ma am loo xam ne dama naan Dial Mbaye mooy kan non non loolu loolu dépassé nañ boobu stade ndax ñun fi mu ne ñun la ñuy présenté mais pas yéen. Mhm. yaay nag ñu kontaan dalal la tey fii te plateau on dit quoi. ñu mhm. plateau xale di mhm. plateau mag. ñëpp nag di ñu seetaan à travers la 2STV. ñëpp di suivre li nga xam ne ne moom ngeen waajal foofu ci Sorano muy hommage bi ngeen defal seen xarit seen doomu ndey mi nga xam ne ne ah làkku na yàlla suuf sedd ci kaw muy ma jooju nii. dëgg la waaw Aïcha ñoo ngi lay fay yow sa tur dafa neex ay Aïchatu macha allah barkalla te ñoo ngi yàlla bu baax di julli ci yonent bi ay Aïchatu di ñaanal ki dem mm-hmm. ndax ki dem yàkkamtu yóbbu ko mm-hmm. waaye ñun ñi fi des mm-hmm. yabu bàyyiwuñ fi kon dañuy xam ni dee du jaas li ma wax léegi kon nag ku nekk war na ko préparer war ko sóoraale. war ko def ci sa bopp. mu nekk ci yow. ay surtout euh, Majoojo. Mhm. sunu nit la. Mhm. sunu mbokk la. Mhm. amul problème. musu jote kenn dara. jàmm nag dafa neex. jàmm dafa neex te ci jàmm la ñu ànd. nekk ci ba nekk ay mag. ba am ay doom. am ci ay goro. ñu nekk ci biir kër ga. macha allah ñuy ñaan yàlla yal na ko yàlla jéggal yal na ko malaakam yërmande teeru ndax ku julle war ngaa ñaan loolu waa boo gisee boo gisee ñuy def eh, boo jullee sa bopp nga def fi daawul sa bopp mm-hmm. ndax nit ñi kenn talatul léegi kenn boo jullee te da ngay fi daawu sa bopp boo fi daawoo sa bopp fekk na yow ba naa la fi nga fi daawul sa bopp du tax dee <laughs> alors <laughs> donc yaay ñuy profité rek euh, xam nga occasion bi nag day suñu waxee hommage dañuy dellu nag ci ki nga xam ne ne euh, moom mooy Madiodio Gningue mm-hmm. euh, wax li mu doon bëgg wala ni mu doon doxalee ak yéen surtout nag li nga xam ne moom moo ko dugaloon foofu ca ba ah mooy nag way ah mooy woy mooy def ay prestation waaw maanaam théâtre daal mm-hmm. tubaarkàlla nag ngeen berse seeni i morom mm-hmm. berse suñu yaay yi sunu yaay seen i yaay yéen a leen mm-hmm. sunu yaay yéen a leen berse ñu nit mm-hmm. ngeen berse ñu mm-hmm. bi ñu nekk ci théâtre bi def musique bi nekk xale bu nekk dafa naa ne seetaan émission bi xam nga xale yi fii jaar waaw waaw waaw dañuy dañuy a roy ci yéen na ma mënuñu sax jël lépp mais dañuy jéem a roy ci yéen ah, ah, tey nag ñu nga waroon nga ñëw xam naa ne sama beneen yaay bi moom mi ngi ci yoon bi di ñëw ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar xam naa mu ngi ci embouteillage bi bi mati càmm waaw woo naa ko léegi mu maa ngi ci yoon wi ñëw mu ngi ci yoon bi di ñëw waaw mu ngi noonu kon moom mu ngi ci yoon bi di ñëw hmm. ndax dañoo waroon pelloo pelloo bu am solo waaye yaa ñu tàmbaleeg yow hmm. ñu bàyyi la ndax sànq ni nga duggee am na solo hmm, balaa ñoo ñëw ci programme bi wax nan lañ ko nar a dëlmalee ndax ñu fàttali que ne hommage bi c'est le 21 juillet incha allah waaw euh, à Sorano incha allah donc nag incha allah loolu tubarkàlla man naa fa teew incha allah 2STV bi yëpp équipe bi fas yéene faa teew incha allah ndax ma joojo ma joojo Sénégal la ma joojo ñëpp la ndax démb rek ñu ngi recevoir foofu ci présidence. Hmm? tubaarkàlla woo leen nag ci affaire yu ndaw kon nag xam nga ne loolu tuuteetul. déedéet loolu tuuteetul. tuuteetul mos voilà léegi dama lay bàyyi nga xuus tuuti rek am noo def ñun. ndax ñu fàttali ko mbokk téléspectateur dañ doon kaas ni ma lu tax ay so bureau téléphone yi waaye nag tey incha allah dañu ubbi téléphone yi bira bàcc lim ngeen ubbi téléphone yi nit ñi mën a dugg saafantoog ñun saafantoog suñu yaay yi nga xam ne ne gis leen daal yomb ay laajte booy bëgg bëggal li la doy booy waxit waxal nga xam waaye yàlla day gaañe di la di kontar booy dugg duggal li doy booy waxit waxal xam ndax dee day jaasoo wér boo dee dem àjjana firdawsi sunu naw la la jooy yal na dajeeg malaakam yërmande dajeeg sëriñ Fallu Mbàkke sëriñam firdawsi moom sëñ Cerno Jaw mu sëriñ Fallu mu sëriñ Tuuba ndaanaan yëpp a ko bokk jooy ajaratu xar mbay ma jaaga sunu mag ji la nuy ma joojo ma faale Njaasaan moom ma joojo ma faale man dara ma dee mbaay waxoon naa ko sama doom ni ma ay yaay yow dee um xayri sekkam ma ko waxoon yaa ni dee ma ni ko ragaluma dee mbaay lu may fekk ci bàmmeel moo tax dee leen fi daawul seen bopp bala ngeen a dem bàmmeel dañuy ñaan yàlla gudd fan ànd ak wér gi yaram lool jaamu yàlla gu yàlla nangu ndax nu dem ba firdawse soo seetee tariixa bi doy man tariixa cheikhay bi doy Seydi Haaji Malick laa gëm ba dem ci waawane boy oma sal ku génn àdduna danga koy booleeg teey booleeg yaroo am jom xam ni dangay fekki kooko aysatu ñoo ngi leen di jaale di jaale alaaji njaay de sës TV de tis jaale waa de sës TV jaale alaaji njaay xam ngeen ni dee du jaas ñun ñëpp dañuy faatoo allah macha allah lii neex na defe naa ne lii moom dañuy du tout le temps lañ koy faral di dégg ah. <laughs> waaye yaay yaay yaay xam nga tamit mun da ñàkk nag ndax xam nga émission bi soo fi ñëwee mhm. faaw faaw ñu wax tamit ci yow tuuti ah. ndax nag xale yi dañ lay seetaan ah. ndax Facebook bi nga xam ne ne à travers ñoom xam nga à travers Facebook bi dañuy posé ay question mhm. suñu invité yi ñu mën di leen laaj mhm. yaay daal xale yi ne nañ yaay foo ne <laughs> xale yi solo nañ ma yaay ne nañ foo ne yaay maa ngi fi rek maa ngi fi gis nga Babalaay mi toog. Mhm. sama rakk ku yàgg ak mhm. lool. dëgg la sama première cassette. tradi moderne. Babalaay mi moo ko tëgg. yàgg nañu. Mhm. waaye daf may soñ sax naan ma doo ñëw def rek benn single. dëgg la benn kii ay surtout. dëgg la ñun Babalaay ngi ne toog dem nañu réew mu ne. dëgg la def ngeen tour du monde. nañu fu ne. fu ngeen fa ci àddina. xam nga as gor bu reer doy reeri daaw yu doy. dëgg la tey tamit bu xasee ba nekk mag. xale yu jóg. dëgg ñoom it tamit di wut lu nu am comme yow. dëgg la ah da tey tuuti di nga gis ku la ne kaay. def lii ak lii. xam nga fi yéen a woote ñu ñëw. waaw te ki ñu ki tax ñu ñëw sunu mbokk la. barki démb démb rek la ñuy jógee RTS. président ganam gi fii ñëw ñu ne fi. Mhm. te nu jot. Mhm. te léegi ay mag lañu. maa ngi am benn xadaratu jumaa incha allah suba an maris populaire bu mag. xadaratu bi xadaratu boo xam ne sama doom Cheikh Tidiane Seck. ak sama doom Ayda Mbène doomu Dame Diop. ñoo bokk ak seeni moroom Fata Sarr jox leen ko. muy populaire bi nu defoon ci Géejawaay. ñu indi ko nag décentraliser ko. mars ay ko wër na yàlla maa ngi ñëw fii mais am na lu ñuy def ca place ba waaye dama ko bàyyi ñëw waaw am naa fa cër bu rëy mhm. ba pare tubaar tubaarkàlla macha allah xale yooyu def ma ndey foofu ca koñ ba ñun ñëpp te ñun loolu rek moo ñuy dundal dëgg la muy tarixa cheikh mhm. xadaratul juma loolu moo tax yu baree baree baree bari Aïcha mhm. ma wàññi ko ba nu wooma nag suñu ma woowee nag su fekkente ne wax naa nii rek ñoo xam maa ngi fi wala nekkuma fi <laughs> ku fi nekkul dootoo mën la nga mënoon. dama ne yéen yéen yéen même soo leen tuddoon santaa sax te waxoon leen bés bu ñu leen wooyee soo ñëwee daa mel ni. lépp ñëpp nag waaw yéen ñëpp la loolu laa loolu laa seetlu. maanaam euh, yéen amoo leen problème mu euh, répétition. maanaam ma problème rek fu ñu leen nee zip rek ngeen joxe. xam nga Babalay gën naa koo gis. waaw tey moom moo moo yëngal sama lépp. te fi mu ne déggoo ngeen ci ay ay ay jëf de. man parce que man gis naa ko xam naa ne mbiri daal ànd na. moo ma dugal ci diine bi sax. ndeysaan baabu laay moo moo ma moo ma dugal ci woy bi ndeysaan parce que dama woy bari rankooñ rek. Mhm. mu teer rek mu daal di may indil diine bi. ndeysaan xam nga boo amul dégg nag. Mhm. kii koraa. doo xam li muy wax. waaw acapella moo jafe. kii kii ko yewoon ba guddi sax mu kiyal ma mais loolu nag moo jafe ci waykat. boo ko defee rek boo ko defee rek day baax. xam naa ne yaawa maak moom. yaawa jëy tubaarkàlla baabu laay mii nañu def par dimanche ma. Ah. sunu yooyu waaw sunu yooyu baax yooyu ñu def ak mu ko sekk ak faafa doo ko rëcc ci woole baabu baabu laay rek ñu defe naa loolu am na solo waaw yaay ba tey programme bi nag ah ngeen koy dërmal euh, le 21 waaw incha allah incha allah samedi le 21 boobu nag mhm. ñëpp a ngi koy pare yàlla xam na ko man dañ may woo naan ma jàll mbaay bee anam mhm. ñu ne dañoo bëgg a ñëw ku nekk pare nag pour ñëw samedi incha fi mhm. fii théâtre national del Sorano gi mu nekkoon fala la ko fa la ñu koy defee ñun ñëpp ku nekk nag yaa ngi takku yaa ngi bàyyi sa soxla yëpp bàyyi sa itte yëpp di ko defal ma joojo ngir baax gu mu baax ak yëg gu mu yëgoon nit ñi ak fa mu doon liggéeye liggéeyee tubaarkàlla ñépp apprécier ko moo joojo ñu ngi yal na ko yàlla jéggal yal na da jeg malaakam yërmande barke yonent bi salaa salaam te nag programme boobu nag ñu ciy woo ndaanaan yu mag yi nga xam ne ne mooy alaaji Baaba Maal waaw moom moom moom nga ca bokk mhm. ma penn sekk nga ci mhm. tubaarkàlla macha allah xale jigéen ñi moom jigéen ñi moom ñëpp ngi ci moom ñëpp ngi ci. téléphone bee ngi daw xamoon naa ne ne tubaarkalla gars dañu laa namoon. allo ñu daal di jël téléphone bi. allo allo Aïssa naa sant yàlla alhamdulilah tur bi naka la. ñu ngi man la tur bi Dame Ndiaye la. Dame kooku sama xarit la sama jigéen la da daan ah. daan Ndiaye war na maa xam. yaay wuyul <laughs> yaay ma ngay coordonné way ba ma ngay coordonné ba ma ngay wax ak yow yaay wuyul Dame Ndiaye ca Thiawane. waa sëñ Dame. waaw yow sama xarit sama soppe. maa ngi ziar waay. maa ngi woon kër ga fële dali ko doon na waxtaane nga naan sama conseil nga bi nga defee wañ. walaay sëñ Ahmed Diagne Sy mag ak sëñ Moustapha Sy yaa ngi fàttaliku. wax nga dëgg sëñ Moustapha Sy. Ah. mu tax si diin ah. ah waay dam bul coupé waay. dam bul <laughs> kontaan naa trop. daaw fi mu duggoon neex na. yal na yàlla yokku. amiin amiin barke yonent bi salaa salaam. amiin amiin mu ngi nii téléphone bi tàmbali na. téléphone bi tàmbali na. Mm-hmm. Euh, macha allah nag mu ngi ni euh, numéro yi affiché na au bas de l'écran donc mën ngeen am possibilité woote ndax namoon ngeen sunu yaay ji daam euh, maanaam daam sax namoon ngeen suñu yaay ji mm-hmm. Dial Mbaye donc macha allah nag am ngeen occasion woote waxtaan ak moom li ñu fi def genre échantillon la rek benn yu ndaw lu ñu leen wan nga xam ne dina am samedi. maanaam samedi tout la troupe lyrique incha allah euh, traditionnelle ñoom ñooy nekk foofu ca Sorano macha allah ànd ci nag ak ndaanaan yu mag comme yaay li ma doon wax sànq nga xam ne mooy Alaaji Baaba Maal euh, macha allah dina ci ànd ak dina ci ànd ak yéen. Mhm. ànd ci ñun ñëpp ñëpp dañuy dem waaw ki nga xam ne ne aussi moom mooy euh, Youssou Ndour. Youssou Ndour tam ci la bokk waaw moom moom def na ci xew mi. waaw euh, donc ki nga xam ne aussi moom mooy euh, Alaaji Mansour Mbaye kooku mooy kooku mooy communicateur traditionnel. très kooku mooy sunu kilifa ñun ñëpp. très bien ñooñu taxaw foofu ñu koy defal li ñuy defal ma joojo. Mm-hmm. ku taxaw ci saraanoo googu mun mm-hmm. Mansour Mbaye la génn ci kàttanu yàlla. ndeysaan mooy def dara moo la génn ci biti ba tax nga dem ci télé bi. très ba ñëpp xam la. ba producteurs yi ñëw ci yow. ñu mm-hmm. defal ma kaset. Alaaji Mansour Mbaye moo def lépp ma càkk Fatim Ngoone yàlla na gudd fan ca dëgg dëgg yàlla na ca dëgg dëgg yàlla na gudd fan ca dëgg dëgg ca ngeen koy wax yéen a xam ay ay jalooreem yéen a xam ay ay yu baaxam ñun koy dégg tamit di ko dund waaye ca dëgg dëgg bi daal tax na ñun ñëpp tamit ñu bëgg li nga xam ne ne moom mooy Alaaji Mansour Mbaye téléphone bi daa mel dafay soné wala téléphone bi soné sama nopp yee bëgg a bañ waaw bongo yi la bongo yeeg tama yeeg <laughs> bongo yi yaay tama yi ak sama yi sama téléphone sama daal yàq lañ sama nopp yi donc mi ngi noonu waaw ñuy woote téléphone bi ñu xam ne maa ngi ci direct rek dama ñu yàq quoi que ce soit alors léegi ñuy wax ne ne euh, organisation bi aussi ñoom ñu ngi ciy woo ñu ngi ciy woo ñëpp ñu fàttali leen ñi nga xam ne ñoom ñoo fay nekk euh, maanaam troupe lyrique bi ah euh, soxna Daaro Mbay ma nga fa mm. Soda Mama sama yaay ma nga fa ah ndey faatu Ndiaye defe naa moom moo ñu dalal mardi moom it ma nga fa nga xam ne ne moom mooy sama yaay ji jaal mbaay moom dina fa ne ma nga fa ñoo ko jiite maire Ndeye Diouf ma nga fa maire Mahawa Kouyaté ma nga fa ah Aca Wele suñu yaay jooju tamit moom it fa nga xam ne aussi mooy maire Khady Diouf nga fa ak ñeneen ñeneen ndaanaan yoo xam ne ne le 21 juillet bi maanaam samedi dinañ leen fa xaar donc nag euh, ñu ciy woo ñëpp ah faatu Guéwal mu ngi ci ma Mapenda Seck mi ngi ci Assane Mboub mi ngi ci maire les frères Guissé aussi tamit mi ngi ci ñoom góor gi Ndiaye ensemble lyrique bi daal maanaam ñëpp Wally Seck woo nañ ko fii defe naa ne en direct woo nañ ko invité nañ ko samedi juillet foofu ci Sorano à partir de 21h lay lay lay commencé defe naa dégg nga li nga xam ne ne moom mooy appel bi euh, Pape Diouf aussi woo nañ la donc woo nañ la bu baax a baax Diouf donc tubaarkàlla yéen ñëpp am nañ yaakaar di ñëw ñu bàyyi yaay mu xuusaat ma ko waxoon las mu metti bi ci réew mi nañ ci waxtaan ju boog sunu gaañi luye waawaaw waawaaw las mu metti bi ci réew mi nañ ci waxtaan ju boog sunu gaañi luye joojo ma faale ko waxoon ba ma ne way lool yow sa way de du jeexee waawaaw ay ajeni woon yas bu metti bi ci réew me ci waxtaan ju boog sunu gaañi luye metti na lool metti na lool ci jaboot lu yasak de paase école ba hmm. añ reer ak joxe de paas de metti na bu la yas ñëwee toog ci sa kaw de metti na ci réew mi ci waxtaan ju boog sunu gaañi luwee yayi fallu ne yërëm leen góor ñe def dépense fay lu yaas dafa metti ci réew faale yal na ko jëfam ju fekk ci bàmmeel lu yaas bi metti bi ci réew mi booleeg jàngal sa doom di fay li metti na njaboot mati dogo caam lu yas bu metti bi ci réew mi lay lay la la ci waxtaan jubóog sunu gaañi lu ah, bi metti bi ci réew mi waaw la way nan ci waxtaan jubóog sunu gaañi def añak reer def ndékkee fay école booleeg fay luyaas loolu metti na ah, luyaas mu metti bi ci réew mi mu nan ci waxtaan ji boog sunu gaay yi luyee far yoo ñuwaaloo gay naa go danjali waaw waaw wax nga dëgg dundal njaboot waaw ah, waaw bëgg a ci fay lu yaas metti na su weer wi demee fukki fan ak juróom dootoo nelaw ah, sa lekk jeex na say nelaw jeex na sa jàmm jeex parce que gàcce nga yi def leen def ngeen li ngeen manoo waaye jigéen ñeen ñu ngi toog di leen muñal xam nga daaloo yorug njaboot xëy bëgg leen a jox ndekkee kañak reer eh, ah, boole ci lu yaas ku daal say nelaw jeex boo xiifee boo tiimee ñam wi bëgg a lekkoo sa biir fiiw fukki fan ak juróom dootoo nelaw sa jàmm jeex na yaa ngi xalaat moo ku la yóbbu say bagaas yi yaayoo xam nga metti na waaw waaw ah lu yaas mu metti bi ci réew mee nañ ci waxtaan ju boog sunu gaañ yi nuyee waaw def naa ne yëf yi gën na ci ku tadagat. dëgg la waaw yaay nuyu mbokk téléspectateur yi gis ngeen sama suñu dugub bi dugg ala dawme la suñu yaay jaan maari moom moo commencé ubbi émission bi suñu yaay nag Mati Thiam Dogo daal di ko nag suivre waaw ñëw ànd si ci biir wayam mm-hmm. te gis ngeen Mati Thiam ma nga jóge ma ngay ñëw ba muy ñëw xamul sax lu sama yaay jaan di way walaay gis nga ko donc ñëw na jël na en marche loolu looy waaye dégg-dégg ak xam tempo. Hmm. ah Kora Jinde di ko def noo xam ne ci suuf mu ànd ak rek daal <laughs> ay sa yàlla <laughs> daal di ko rek àndandoo yëf yi mu doon benn. waaw waaw naa la. fay naa la ay sa. nee nañ ma da ngaa nekkoon di capp cappa waaw am bu téye la. embouteillage bu autoroute bi de. autoroute bi dem naa sax bay jooy ba ci yàgg ma ne naa dem rek. naa dem rek raawul waaw yoon bee nekk yoon bi nag moom kenn mënu ci dara. Hmm. waaw kon mënu ci dara. yaa ñu nga dalal jàmm ci émission on di quoi. ci hommage bi nga xam ne ne eh, ñu ngi koy defal eh, seen seen mbokk moomu suñu mbokk ñun ñëpp suñu yaay. Mm-hmm. ma jooju ñu mm-hmm. ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw Aïcha maa ngi nuyoog eh, Sénégal yëpp. di nuyoog fans yi di nuyoog soppe yi. Mm-hmm. waaw di kontaan rek ci ñoom dafa fekk ni nit moomoo sa bopp ndax ku nekk xam na ne embouteillage bi buy ñëw. moom moo sa bopp bu doon avion damay jël ñëw rek di cëpp waaw ah, may kontaan nag kontaan ci ki ñuy defal émission bi tey jii mu dem jiitu ji ñu yàlla na ko yàlla yërëm waaye ku baaxoon ku bëggoon mbokk ku bëggoon nawleem ku fonkoon ñëpp jox ñëpp cër bu lay wax dara sax day xool ndax li mu lay wax neex na la wala neexu la ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ah, ma fekk fi nag sama yaay mm-hmm. ajaratu jaal mbaay euh, muy nit ku baax di mag mu baax mag mu neexa a àndal mag mu neex a nekkal mag mu yiw di nuyu baabulaay mii nga xamante ni man lu ma way rek moom moo ko xalam mooy dina ji yaay yaay doguma la yàlla bu la dara dog ñu daal di nga xam ne ne moom moo nekk ci téléphone gi ndax àddina fi mu ne ñoo leen bëgg allo allo allo allo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si Fapal la 2STV. waaw 2STV yaa ngi fii ci émission on dit quoi. waaw am na ko Sow Diagne. tur bi naka la. Oumou Oumou Thiaw Oumou Thiaw Diagne. Oumou Thiaw ah, <laughs> ma ko man bu sama yaay ba woote su ma ko gisee rek su ma nee allo rek mën naa yem foofu. maa ngi kontaan ci ñoom nag di wallaay egg ak jàmm. wallaay wallaay ci wallaay jàmm. di nuyu a la gisee télé foog ma woote dama essayé rek foog ci yow Diagne. sa la waaw kañ euh, Mbaye. sa xol moo mel noonu jërëjëf kontaan nañu trop merci. jërëjëf Tiwaawan la dëkk kii Tiwaawan la dëkk waaw ah, Tiwaawan la dëkk waaw ah. ki woote léegi Tiwaawan la woon ki ci topp Tiwaawan <laughs> xam nga ko ñëpp a ngi suivre émission bi waa dëgg la ay ta ñu bàyyi la nga eggal li euh, yaay Mati nga naa di ñëw nag euh, tubaarkàlla mm-hmm. bi nga xam ne ne dara tuutiwu ci dëgg la ñu fas yéene koo dërmal samedi le 21 juillet samedi gii ñu jëm mm-hmm. ngeen ci ànd ak nag seeni morom yu bëri di ci ànd ak artistes yu bari di ànd ak télé yëpp nag mm-hmm. waaw di ànd ak télé yu mag macha allah ah, lan lañ fa a fekk ñun suñ ñëwee samedi lan lan lan lañ a am dèjà ñun commencé nañoo wane tuuti tuuti mais lan ngeen di waxaat loo xam ne ne fas yéene fa am foofu samedi incha allah. ay sa euh, euh, xanaa nag di kontaan rek di ñaan yàlla yàlla nañu yeggalee suñu sago. wante nag di gërëm tam Adja Touré ak Fallou ndax du ko bàyyi doom rek mu taxawu la. waaye wax dëgg yàlla yaayam mi ngi ko won ginnaaw tey jii moom magam ñu ngi taxaw. bañ seen yaay fay bañ ku fàtte seen yaay ñuy def guddi gu mag gi pour sargale ko ko pour bañ xel yi fàtte ko bëgg xel yëpp ak xol yi dellu ci moom muy guddi goo xamante ni nag ñëpp a ngi koy xaar carte yi sax moo yéex a génn léegi bi may ñëw indaale naa ci mi ci saag bi mm-hmm. euh, kon ñëpp ñu ngi xaar mm-hmm. guddi googu mm-hmm. Adja Touré nag mu am xër goo xam ne dañu woon sax damay maye guddi gi waaye guddi gu toll ni guddi ma joojo ñi ah. ci am yéene am ci yëg dafa bari ñu koy def nag carte yi nag entrée bi junni rek la te Sorano ku ñëw di nga ko fekk soraanoo carte yaa nga fa waaw mi ngi nii ci sama saak mm-hmm. soo ko gisee dootoo bëgg dara ndax dangay xam ne àddina lépp fii lay mujj kon lu mu doon rek na rafet yal ñu yàlla may fekkeetal moom mii ñu koy defalit yal na àpp sore te yàlla yërëm ko yërëm fàttaala njaay ma ko fa fekk waaw ndax fii kenn desu fi ñooñu boo daan seet ci suñu groupe lañ daan bokk ñun ñëpp ñu ànd tey ñoom ñaar yàlla soxla leen ñu jiitu ji yàlla na àpp soree waaye Aïcha nag guddi googu nag ku ci ñëw di nga gis ay ndaanaan yu mag ah. dégg lu neex ñu woy fa nag répertoire tamit ma joojoo nga xam ne ñun artistes yi ni ñu ànde booloo mm-hmm. sax day daw sa yaram ku ci ne man ngaa woy sa wayu moroom waa di fa gis ñu woy ndax woy yuñ doon léegi mm-hmm. ma fekk mère Dial di ko woy bu ma dugg ci mm-hmm. woyu ma jooju la tey nag ñëpp ku ci ne mën ngaa woy sa woyu ah, moroom kon répertoire ma joojo dañ ko fay woy dinga nga gis artistes yu ko woy ba mel ni moom moo taxaw di ko woy yal nañ yàlla yeggaleel te na na ñëpp ñëw mm-hmm. ndax guddi gi ku nekk na ci gis boppam guddi gi guddi ñëpp la ñëpp a ko moom na ñëpp ñëw def seen participation seetaan guddi gi xol yëpp sedd xol yëpp neex alors donc ñu fàttali que ne euh, carte yi tubarkalla na dafa xaw a yéex génn nag waaye nag génn na mais soxlaa fan la ñuy dem. Sorano. Sorano carte yaa nga fa entrée 5000 rek la. entrée 5000 ku yegg fekk ko fa. entrée ba amul ñëpp. 5000 ñëpp 5000 rek. macha allah ñëpp 5000 am na donc dégg ngeen li li yaay Mati Thiam wax nee na entrée 5000 la donc carte yi mi ngi disponible fort ci Sorano donc képp koo xam ne ñëw nga ci buntu Sorano rek incha allah dañ fa fekk carte yi yéen ñëpp ngeen mën a jënd yéen ñëpp ngeen mën a ñëw jàppale li nga xam ne ne moom mooy euh, euh, Bintu Touré ndax Adji Touré ndax nag macha allah li mu def am na solo defal hommage sa yaay bañ ñu fàtte ko ndax mu doon nag ponkal mu mag euh, macha allah waykat mu àddina ñëpp elle a fait le du monde ñu daal di jël téléphone bi ki na ci téléphone bi alo allo allo allo waaw allo. nañ la sëñ bi. tur bi naka la. almasuru maay kenn ñoom Thiawane. sëñ bi mën nga yokk sa baat tuuti rek s'il te plaît. almasuru maay kenn ñoom Thiawane. almasuru mbaay. almasuru mbaay la waaw. waaw waaw na nga yàlla nangu. ah yal na yàlla delloo la. amiin yaa rabbi. amiin waay. maa ngi fi tuuti wala wallaay alo maa ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg bu baax papa lay dégg bu baax. waaw maa ngi nga wax léegi. lay dégg léegi maa ngi lay dégg jërëjëf. waaw ci mbokk moomu ngeen àndaloon yàlla jël ko. Hmm. yàlla yàlla jël meeram fan tudd. amiin amiin yaa rabbi. waaw yéen ñi fi nekk yàlla leen fi mbaay. dëgg la. ndax loolu rek la mu génn àdduna loolu mooy aar. mooy aar kay mooy aar kay. yàlla yàlla delloo loolu suturaal. amiin amiin amiin yaa rabbi ñu bokk ko ak mbooloom jullit. ah nuyu leen ma Cheikh Tidiane ak xale yi. waaw incha allah incha ko dégg jërëjëf. Ah, jërëjëf merci kontaan naa ci woote bi Tiwaawoon. jërëjëf ah, waaw Tiwaawoon waaw Tiwaawoon ah, waaw waaw waaw ñoom ñëpp ci biir daal ñoom ñëpp ci biir mi ngi noonu alors donc euh, nee nañ émission bi émission àddina bi la émission ñëpp la donc ku fi mënti ñëw tamit ah dañuy daal di ubbi téléphone rek ñu daal di wootante wax. waaw Tiwaawoon fépp a ngi xëccoo. comme mm-hmm. kay xam naa ne dana mënut a jot rek waaye. serveur bi moo taxit xam naa ne commencé na fay affaire mais yëpp ci la léegi nag dama leen di bàyyi. comme sunu yaay Mati Thiam mi ngi soog a ñëw. Ah, balaa ndax li ci des parce que bëriwul. Ah. waaye mu daal di ci defal. laal am tuuti su dëgg. waaw ko belel

nga dee du jaas xool daalo oh, yaay ni mu neexe waaw ngay gis sa yaay di noyee sa yaay def sa yaay ci sa xol xëy gisatoo ko waaw caam allu galas muñal tiisoo te muñ sa yaayoo xam ngeen ni fii kenn du fi des. wallaahi am yaay yal na leen yàlla bàyyeeg seen yaay. amiin ku yaay yal na la yàlla may xolu muñ yaayoo. jaaji nguñu caam daaw kumba mbaa daan maay sa maamo sama yaay Tuuba yettili ko sëriñ Tuuba Sénégal a koy jooy ndaan naan yaa ngi koy jooy fan sa yaa ngi koy jooyo Tuuba nga koy jooy sëñ Cerno ngi lay jaale waaw waaw ajaratuma joojo moo ni woon li yóbbu yaay baay xam ngeen du nu ba waaw de kon bàyyi woon na hmm. xel bàyyi woon xam na ni bés bi mënta tii mënta daal bañaam waaw waaw yaa ko mere mati dogo wax nga dëgg waay ay waay wax nga dëgg waay subaana de bu dee doon jaas yonent bi du fi jóg sallallahu alayhi subaana de ay waay mati dogo bu dee doon jaas mm-hmm. Cheikh na ma du dem nu subaana dee mati dogo bu dee doon jaas waaw waaw Seydil Hadji Malick du dem nu subaana dee waaw waaw mati dogo bu dee doon jaas Serigne Touba du dem nu subaana dee waaye daal ma joojo fekk na Serigne Touba na ko teeroo ki yow ma yow ma anda ko gonda ay sa addinaay bëgg a jeex am nit ñu baax ñey bëgg a jeex nit ñu baax ñey bëgg a jeexoo ñooy bëgg a jeex walay cam dogo man xalaat naa bi bés hmm. xalaat naa njaboot gi sóoraale naa yal na yeexoo waaye bii bés man ta jaas day ñëw moom yal na yeex ay sa daaloo sant nan la gërëm nan la sargan nan la kontaan ci yow lii nga ci bés bee jàpp nga ci bes bee yaag ñi ni yow ak borom kër gi jàpp na ci bés bi jàpp na ci bes bi Aïcha la mignonne waaw waaw kon àddina ko belal jeeri duniyaa tubaarkàlla man sama xol dafa tooy ba xamatuma sax li may wax xam nga nag sama ñaari yaay su ma sekkee mhm. ñuy samay royukaay ñu yàgg leen di leen bëgg nag di leen doon seetaan ci suñu yaay ba ñu doon boot wala boog ñu doon uuf ah Mati Thiam Dogo nga xam ne mooy borom ñaari bàjjen yi tubaarkàlla nag ñu ma doon nuroo léegi moom ma doon def nii di feñ nii di nuroo léegi ah. rek yéen seen i temps tubaarkàlla ni ngeen def nii macha allah dara dañu ci ah li ma doon wax naa leen mun a demul xam naa ne nag lii ay la moo tax dañ koy daal di defee nii rek hmm. waaye dinañ gën a yaatal dinañ nag ndax émission bi. xam ne émission tubarkalla boo xam ne dafa yëngatu. waaw waaw incha allah kay mënta ñàkk ngeen ñëwaat. ah dina ñëwaat ñu indi instrument kora ñëwaat. maa la ko wax ah, euh, coo yi ñëw coo li ñëwaat tuuti coo ñëw mën nga mën ñëw. loolu mënta ñàkk ah tubarkalla yaay mënta ñàkk. bëgg noo delloo rek. bëgg naa delloo. la yàlla ji de. dama leen bëgg a delloo. bëgg noo delloo ñu yëngalaat daal loxo yi. amul <laughs> na donc gis ngeen euh, émission bi moom jeex na li nga xam ne moom mooy journal de 19h. Ah. waaye ñu leen li nga xam ne moom moo nekkoon euh, émission bi tey moo nekk. Mm-hmm. hommage bi ñuy dërmal euh, Madiodio Gningue soxna Madiodio Gningue. waaw carte baa ma ko jox. waaw la koy jox la ko. waaw voilà dañu ko ah. bindoon en attendant ñu leen di fàttali ne hommage bi kooku Madiodio Gningue lañ koy wax macha allah nag trouble lyrique bi nga xam ne ne nag moo nekk foofu ca euh, théâtre Daniel Sorano ñoom ñoo ko fas yéene def le 21 juillet maanaam samedi gii tey la tey la jeudi vendredi samedi ñaari fan moo ci des tubaarkàlla carte gaa ngi nii carte gaa ngi nii papi voilà carte gaa ngi nii macha allah gis nga hommage baa ngi nii ñu fas yéene ko def foofu ca Sorano ah, théâtre théâtre national Daniel Sorano ah. incha allah samedi bii nii le 21 juillet à partir de 21h maanaam xew-xew bi 21h euh, wolof bi laa bëggoon ut 21h waaye xamuma nu koy waxee mooy 9h rek mooy 9h voilà mooy 9h juróom-ñeenti waxtu rek ci guddi juróom-ñeenti ah. waxtu ku rek am place très bien à partir de juróom-ñeenti waxtu ci guddi incha allah ñu ciy woo ñëpp nag entrée bi moom simple na 5000 francs junni rek la di ci woo sunu yaay yëpp nag waaw boo ko kenn manqué di ci woo fans yëpp ñi nga xam ne ne dañ doon dañuy doon bëgg ma jooja bëgg ñi nga xam ne ne moom mooy sama yaay jaal mbaay bëgg ki nga xam ne ne mooy sama yaay mati caay dogo bëgg troupe bi nga xam ne moo leen doon bëggal ah tubaarkàlla nag woote am na samedi gii la ñu fas yéene nag wone waat démb mm. fas yéene indi répertoire euh, ma joojo ñing mm. fas yéene def euh, spectacle yoo xam ne gën ngeen koo gis ndax loolu temps RTS la woon yàgg na macha allah dinañ indiwaat yooyu souvenir ñu fàttaliku démb ànd ceeg xale yi yi nga xam ne ay Pape Diouf ànd ceeg ñoom Waly Balago Seck ah, ah ànd ceeg suñu ah. ñoom Papa Youssou Ndour ñoom Baba Maal mm-hmm. tubaarkàlla ñoom Assane Ndiaye ñoom ñëpp dinañ ñëw ma Penda Seck ñoom ñëpp ci tubaarkàlla macha allah dinañ fa ñoom Daba Sey tubaarkàlla bu ndaw sàmb bu ndaw mu ngi noonu bu ndaw tam day mu ngi noonu kon nag mbokk téléspectateurs yi yëf lii la woon man ma leen jox rendez-vous samedi à partir de 9 bu ñu fàtte on dit amaat na à partir Pops. First of the cat.